ginnaaw ba ay fan weesoo ci feetu tabaski bi ñu ngi nemmeeku ne ci bërëbu nappkaay yu bëri jën nekk na loo xamante ne dafa jafe lool. heure bi mooy wax ak yow nii bu ñu waxee dëgg rek jën amagul quoi euh, amoon na ci temps bi nga xamante ni moom la ñu génn muy période bi nga xamante ni si la ñu dëgmal tabaski pour fàtte ne géej gi dafa euh, saison la ñuy napp maanaam dañu am ouverture noor am fermeture noor léegi nag dañu nekk si jeextalu noor bi. moo waral fi ñu toll bi ngeen ñëwee nii fekku leen fi jën amul parce que lii ëpp si dooley mool yi dañu dem tabaski ji deneen bi ñenn ñi commencé guñu sax seen ay activité xool leen boo xoolee di ngeen gis ni li fi nekk si ay gaal gaal yu néew la. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci bilee nappkat li mu xamle mooy tabaski bi amu ci benn impact ndax jën yi ñu ngi am bu baax. jën am na kay mbalaaw bi mu ngi jàpp jën filaa tournée yu ndaw yi ñu ngi jàpp jën déjà boo tourné rek xool am na yuy ñëw. tabaski bi neex na lool lool lool ndax géej gi nàcc na. li ñu tële woon ak li ñu doon sonal yëpp nguur gi dimbale nañu si. ca noonu itam ñu doon àddu ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci boobu boobule secteur. lii nekk si géej gi dafa si salte dafa bari géej gi dañ ko war a nettoyer fond marais bi dañ ko war a dañ ko war a defaraat changé waat environnement wu géej ba nga xamante ni géej gi dinañu am ay dëkkuwaay pour mën a loger si nga fi nga xamante ni moo di seen ay kër parce que bu fàtte géej gi dafa am ay kër jën. këri jën yooyu tey salte yi dañu ko da ko fàtta mu nekk ab raarate ci jën yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko nag ginnaaw ba ñu tabaskee ba noppi ndax ñu bari ci nappkat yi ñibbiseeguñu ngir commencé waat seenub liggéey waaye nag ñeneen ñi li ñuy xamle mooy tabaski bi yàkkalu leen dara ndax jën mu ngi am ba tey